vous êtes être le héros, lui qui a été mis sur le bord, La réaction et du champion, Franck qui s'y est vexé, qui a ce pénalty, il a vu les coups pour qu'il s'est tissé le... Et qui transforme en fou, le banc exit, un but partout. c'est sëñ bi. ah noo tudd. ah xanaa xaw a tiit rek. xanaa xaw a tiit. waaw deuxième mi-temps moom. xam naa ne dana xaw a métti lool. a métti. match deuxième mi-temps bi. est-ce que est nii yoon na ñu mën a ba pare taxaw bàyyi bàyyi ak match bi euh, Ivoirien yi te tam en tamu nekk pays organisateur. non pays organisateur en général day naqaree footballal. toujours dañ leen di jàppale ci benn côté booy xool. booy xool. penalty amoon amoon nañ penalty tiré wuñ ñoom ñu am ñu tiré loolu lépp da ciy joué. mais yow actuellement ni sa xel dalatul. waaw instant bi moom sama xel dalatul maa ngi dundee yaakaar rek. yaa ngi dundee yaakaar. waaw yàlla baax na ñun ñëpp dañuy dundee yaakaar. tur beeg sant bi. ah noo tudd tur beeg sant bi. Pape. Pape ah. waaw merci Pape ñu ngi lay jaajëfal. waaw mais président ñu ah, ah, nañ leen fii ci fan zone unité 5 bi tey ngeen ñëw indi fa expo yeeg yëpp tey nan mais nan nga yëgee match bi ak ni ñu demee 1-1 nii dem ak ñoom prolongation. waaw mais mooy loolu yaakaar bu tax rek mooy loolu. mais yàgg yàgg day baax. xam nañ ñu daale quoi xam nañ dañ yor yàgg ah, sa xel dal ci li nga jotagum seetaan si deuxième mi-temps bi. yàgg na. mais nag am na lu des tuuti quoi. da doon dugal premier mi-temps. mais waroon bi ñu doon premier mi-temps da war indiwaat joué ak bal mu défendre boo ma yor bal bi suyee ak bal loolu lay défendre mu gën a am doole nga ñëw taxaw sa kaar yi amul amul mënoo mënoo jee kii parce que loolu loolu tey moo ñu indi jafe-jafe yi ni nekk ba ñi waruñu woon sax dugal ah mooy parce que boo xoolee senegal dafa mën a un ba pare bàyyi ak match bi Ivoirien ñoom ñuy diriger ñoom waruñoo diriger bal lu mu dee dee ñu ne war a yor bal bi

équipe bi joué joxe ñëpp xam ni ñuy joxe nañ mais amuñu chance ñu perdre mais buñ ko tegee ci dëgg rek Sénégal dafa mëne 1 un ak match bi Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire moo dirigé ba match bi jeex très sincèrement parlant ñom ñoo mérité victoire bi ñoo mérité pour dem quart de finale Sénégal de mérité wul donc di leen joxat dig dajé ci benen numéro.